la ma waxoon bu njëkk rek laay waxaat jàng jànguma constitution ba xam ne ci nekk waaye tomb yi ma ci gaarloon te ma xam ko moom neexu moon ba tey duma neex waaye réew mi fi mu toll tam gëj na fi àgg duma politicien tamit ndax man duma militant duma opposant ànduma ak kenn ànduma ak Macky duma Macky duma Macky ilaaxir waaye bokk naa ci réew mi di citoyen kon lépp luy defar réew mi su ma ko xamee war naa caa wax lépp lu ko yàq su ma ko xamee war naa caa ndax maa wax ashadu an laa ilaaha illa dib julit kon luy defar diine su ma ko xamee war naa caa wax lu ko yàq su ma xamee wax wax aslamtu nafsi itam di murid talib sëñ Tuubaa kon lu yàq tariixa bi su ma ko xamee war naa jox su yor dante Sénégal di citoyen yi kon loolu taxul ma yëkkati sama kàddu kon référendum bi la nga jëkkoon wax yii rek la diine ak tariixa ak réew mi défendre sama kemt lay kàttan réew mi nag politiciens yi bu ñu rey ñoo ko bëgg a yàq bu caaxaan jeexee dëgg des ñoo bëgg a yàq réew mi yàq nañ nag lu ëpp ci njabootu réew mi ba ñu bari yàqu di wax lu ñu war a wax di def lu ñu war a def di dem fu ñu war dem bi fi Abdou Diouf ak Senghor nepp ak ba ci njëlbeen ak Abdoulaye Wade population Sénégal ay xar lañ ba ma waaye nag léegi ay gaynde lañ gaynde kenn du ko tiital kenn du ko xopp génération bi deux mille deux mille deux mille jëm ba léegi xale yëpp yeewut am nañu fit te jàng nañ ba xam te yeewu nañ boo xam ne kenn mënta tax ñu nelaw am nañu fit yëm ba kenn mënta tax ñu ragal moo tax ku jëflanteeg ñoom da ngaa war a teg lu leer taalibe yi Sëñ Tuubaa bari ci lool ay jullit bari ci lool bu suñuy kilifa waxut itam am na raison bu leen tee wax ndax léegi ku yëkkati sa kàddu ñu yàq sa der te ba ñuy ba ñuy ba muy ñoom kese muy neex dañoon benn sëñ wax bu benn kilifa dina wax nañu ñu bàyyi ak suñu politique ku ci wax sax ñu ñu saagal wala ñu defal neen ba li ëpp ci kilifa yi ñemeetu ñoo wax ngir sagal seen ngir sagal seen der te ñoom de lañ daan def yàlla lañ ko digal man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa in lam yastati fa bi lisaani wa in lam yastati bi qalbi sunu kilifa yu mag yi dañ daan yëkkat seen kàddu te wax lu ñu war a wax waaye léegi nag ñii fi nekk di ay policiers ñoo jëñ ay xale ñu leen di saaga ak a toroxal te koo bëgg mu bëgg ni nga bëggee teraanga da nga koy teral waaye koo bëgg bañ mu bañ la ni nga toroxal toroxal da nga koy da nga koy toroxal mu dem nag ba bëgg a yee fitna te suñu borom nee na wa taqoo fitnatan laa tusibanna allazina zalamu minkum xaasa yonent bi wax ne al fitnatu naa'ima laxana allahu man ay gaza kon ki ñu war a waxal mooy ki jiit réew mi ndax lépp ci loo na nekk gënul nit ñi ndey gënul nit ñi bàyyi ëpp leen xam-xam yàlla tànn ko def ko def ko def ko muy buur mu jiite ñëpp nangul ko ko kenn fëkkastalu ko mu tolloon ci ni woon day wàññi mandat yi def ko juróom-juróom ba muy waaj a jeexal ñëpp attaque ko ndax yaa waxoon nangam nangam. mu ne la waa nangam nangam ba dindiwu ko ñu bàyyi ko mu def juróom-ñaar mu ne amaat beneen mandat mu juróom mu ne bu jeexalee muy bàyyi day bàyyi kon nag bu mu jëfandikoo doole bu mu jëfandikoo sañ-sañ ndax man yi moo ma tasew moom dañ may wàcce fee bu tasew sama kilifa dañ koy wàcce fële bu tasew nag ñeneen dañ dañ leen di wàcce fële bàyyi ko mu jàll bañ lay tàngal kafteeru kaf waxuñu la nga naan lépp bañ la reyoon ndaj te waxuñu nga lekk lépp ndax xajul ci biir teraanga yi yaa moom café gi yaa moom cafetière bi ak teraanga yi yow lañ reyal nag daa war a doy sëkk comme yor na réew mi fukki at ñaar te jàpp naa ne keneen dootu yar fukki ñaar ndax ñaari juróom la ñuy muy fukk ko yar moom nga yor war naa doy loolee buñ taajeem ndox nag ñëpp war caa naan nga naan ñaari pot bëgg a dolli ñetteel nit ñi dañuy tey sa loxo lii moo indi coow li xaw ma nag àq waaye moom li mu war a def dañu bëgg ñaawoo dikkee na nga féete war rafetal sa wàll te ñaawoo gi bëgg a ñëw nag te am na lool jaas yi fa faju ko fetal faju ko ngànnaay faju ko xale yi fii ñu toll nii dara mën leen a dëpp te lépp loo xam ne jaas yi moo ko tëral wala fetal moo ko tëral su fetal ga tëddee loolu day jógaat kon man waxtaan ak ñim ko seqal ba tënk ndax yonente bee gën ñëpp sallallahu alayhi wa sallam sun borom da koo wax ne سيد بروم دوكو واخني وساورهم في الامر واسع عصمت فتوكل على الله اجك وصلت فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا قليس القلب لانفضوا من حولكم كيرمان يالا موت نغا موك كليفا دا ورا نوي بنوبي دغر ليت بنوبي خات ñaanak bu ñuy xëccoo ku jëkk bàyyi rek gañe nga te moom mi ngi xëccoog mbooloo kon moo war a bàyyi mbooloo mi tooñu ñu ko de seen àq la ñuy laaj te mu kon nag li gën ci moom gën ci réew mi mooy mu dem ceeg rafetal fa imsaakun bi maxruufin aw tasirun bi ixsaan comme wax na fu ne waxati fu ne te nit nag du fas wu ñuy tënk du mbaam mu ñuy tënk ci kàddam nañ koy yow moo waxoon ne ba amee ñaari mandat bàyyi kon warut yokk mandat mbaa bu ko yokkee war na cee waxtaan ñu mu ko seqal bañ bañ déggoo ceeg moom waa ñàkk gi ñàkk a def loolu nag moo tax ndaw ñi gis seen bopp ñu ko seqal gis seen bopp. ñu ànd ngir ngir ngir yàlla di xëccoo am na ko wax dëgg ñu ànd ngir àddina xëccoo am am na ko ci wax dëgg kon war nañoo xëccoo waaye xëccoo nag warut a àgg ci juyoo wute mënta ñàkk gisoon nañ ñi ñëpp kenn bokku jeeg sa mbubb moo sol dañoo bu dee bu ci tubaab yi ñii dañoo weex ñii na ñii ñuul ñii xong ñii ñoo bokk diine waaye wutewuñ dañoo juyoowuñ dañoo wute nii rek ak couleur wute yére ñun ñëpp ñoo bokk waaye ñoo bokk liñ bëgg est que sunu wutu ko tax nañu xëccoo tax ñu ŋaayoo koo jooyal nagam du ngeen daje mukk mukk fi mu toll daa àgg ci juyoo ak ak ak juyoo ak réew ndaw ñii ñoom ñoo bëgg a soppi ndaw ñii ñoo dal ci moom te nguur nag su ko yàlla yi jël nii rekk lay deme ba muy jël nguur gi ñëpp ànd moom di ko apprécier waaye fi mu toll dëggatul neex dëggatul <laughs> lu ma dalal xelam hmm? kon nag balaa àgg ci gàcce balaa àgg ci genn gàcce gi man li ma jàpp <laughs> moo gën ci moom tey jàmmi réew mi mooy mu woo ñëpp waxtaan lam yëkkati woon mu teg ko ci suuf suñ waxtaan yi ba déggoo ci toxal ñoom ñëpp ñu toxal suñ déggoo ci wéel ci ci dat bi ñu wéel mu wéel ci dat bi yàlla yaakaar ne mooy solution bi waaye man gisuma leneen sëñ bi ñu gis la fi at yi li passé eh, bi ñu fi wootee wii ak noo bi nga defoon fi daanaka benn congrès ak tournée boo xam ne da nga d'accord woon ci loolu man nga noo fàttali lan moo waaw loolu moom ay tomb la yoo xam ni dafa lënt te laaloon diine ji muy xeeti laïcité bi te noonu ñuy ay jullit gëm yàlla gëm yonent bi di àtte woo ci alxuraan ñu bëggoon ñoo dugal foo xam ne nag yàgg nañ koo bëgg ndax moo génne sëñ bi Sénégal ndax wax ashadu an laa ilaaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah ba mu delsi njaboot gi mu fi bàyyi ñëpp di bañ loola waaye nag di maslaa bi ñëwee nag ba jëmm jamono jooju nag ñu indi doole am luñ ca doole loo xam ni day daganal ay ngóor jigéen nag yu niroog yooyu yooyu loolu taxoon nag bañ ma ko leeralee laa yëkkate woon sama kàddu di ci dox ba wër réew mi fu ne dem naa fa ba yàlla dogal na dëkk Sëñ Tuubaa ñëpp ne ñoom Darou Moukhty ak Njaareem ak fépp Kaolack fu ci yoon nee na ñoom ndax euh, dëggal kàddu suñu borom googu nga xam ne moom la yónni Seydina Muhammad te sëñ Tuubaa fàttali ko diine rek di diine yàlla rek di yàlla ñu gëm alxuraan gëm yonent bi li islam bañ ñu koy bañ donte nag mën noo def république islam itam war na noo mën a sàmm diine xanaa ak suñu ngor ak suñu taalibe lii dee taxoon ma ma waroon